alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala alfaatihi alxaatimi sayyidina muhammadin naasiri alhaadi ila siraatillahi almustaqim wa ala aalihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim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 soqeeku waayam ci luxa waxla baat beek istilaahu ulamaayu sharia nuñ ko gisee waxla njariñ lu rëy li nga xam ne tamit asaka làmboo na ko li ci des rek damay wax ak yow nag war gi mu war ci ak fardiyatoom ak ci ñim nekk farata asaka farata la waaye kenn la ci juróomi ponki lislaam yi ponki lislaam yëpp soo ko jëlee juróom la su fekke yaa ngi konte nag asaka jàppal ne mooy juróomeeli ponk ba nekk gim nekk di farata alquran wax na ko ci aayaat yoo xam ne yu bëree bari la ba waxoon naa la ne alquran ak boppam rek juróom fukki aaya ak benn la ci tudd ci wàllu asaka su fekkee da jël baat bi muy baatab zakatu ci maarifa bi buñ ne maarifa mooy luñ marifal mu am liifak ak laam ni ki asakaatu wala ñi marifale ko ci idaafa mel ni nga ne zakaatul maali wala sax nga ne maali wala mu nekk luñ maarifal ki damir anaak antaak antum yu mel noona wala muy ismu ishaara wala muy ismu mawsul ak façon yooye di maarifa boo demee ci ibnu Maalik dina la ko gën a leeralal waaye li ma ci amal sol rek baatab azzakaatu ci maarifa bi moom baat boobu rekk ñëw na ci alquran fanweeri yoon fan fanweeri yoon la baat boobu ñëw ci alquran boo demee ci yusufa qaradaawi ci téeréem bu ñu tuddee fiqhu zakaat moo ko wax ñaareel bi tamit boo jëlee baat bi ñëw na ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar ñi lënkale ko lëkkale ko ak julli moom siifur bële borom borom fiqu sunna saydu saabiq joxe woon daa ko rut ci moom sax yéem na ko lool fu ko saydu saabiq jëlee saydu saabiq dafa ne woon soo jëlee julli ak asaka yàlla lëkkale na leen ci alquran juróom-ñetti fukki yoon ak ñaar ba foo alquran ne yuqiimuuna salaata rek wa na zakata wala fu mu ne wa aqiimu salaata wa atu zakata ba mat juróom-ñetti fukk ak ñaar moo nekk ci fiqu sunna saydu saabiq mais lim booba imaamu Qardawi moom nee na matut ko lii yàlla lëkkalee alquran ak julli daal mu ne ñaar fukki aaya rek la ak juróom-ñaar ba sax wax na ne baat yi tekki asaka lu mel ni baatab urfu waxoon naa la ko baatab nafakatu baatab sadaqatu ba ci baatab awnu wala maawunu ni ko yam na unal maawuna mu ne même baat yooyu yëpp boo ko jëloon sax nga idaafa ko ci ci lii lim bi du tax mu mat juróom-ñett fukk ak ñaar ba tax na moom yéem na daal Seydou Saabiq fu mu jëlee loola waaye ah ñoom ñaar ñëpp góor lañ nag ñoom ñaar ñëpp jàmbaar lañ liggéey nañ ci diine ci xam-xam waaye nag ku la mujj taalif rek gën laa jub taalif gën la euh, sakkanle gën laa tabaarakallaahu ëppale njariñ ci taalif ga ndax dafa fee fekk fuñ taxaw ndax téere yu mujj yi téere bu gën a mujj génn rek dafay gën a xereñe ci façon waxin waak usloob baag mbindin ma ak bagaas yu bari ya muy làmboo moo tax jamono ji Seydou Sabiq di bind bagage yim amoon dafa wuuteeg bi Yusufa wi di bind nga xam ne mi ngi dund ba tey bagage yim am dañuy wuutee moo tax daal loola buñ ko jàppee euh, euh, maanaam Seydou Sabiq nañ jàpp na ñoom ñaar ñëpp góor lañ dañ doon def rek ijtihaad te yonentu bi nee na képp ko def ijtihaad nga jot ko nañ ko nañ ko bëggee xam nga ñaari yool yoolab ijtihaad ba ak isaaba ga su fekkee benn nag da ngaa juum su boobaa benn yool nga am moo yool ak ijtihaad ba seex na sëñ daara seex moo dafay wax ne njuum te yàlla du ca fay kenn ijtihaad ba rek la ko yàlla fay mooy góorgóorlu ga kooku boo demee ca xam mooy jàngale loola nga dem ci téere bu ñu tuddee maraqi suud kon euh, limbangoog ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar moo ñëw ci alquran fu yàlla ne julli leen joxe leen asaka cay tegu ñi bokk ci même benn aaya bi léegi-léegi nag dana ko indi tudd julli tudd asaka waaye bokkuñ benn aaya buñ ne comme demee ni suratul muminuuna qad aflaha almuminuun alladina hum fi salaatihim xaashicuun walladina hum an illahi mucriduun hum li zakaati faaciluun kon gis nga ko ci même siyaaqa bi waaye nag bokkuñu ñoom ñaar benn aaya loola tamit ñëw na ci alquran naka noonu tamit dana ñëw moom asaka ñu ñi toftaloo ah, boo seetee aayaat yooyu ñuy wax daanaka li ci xëpp yëpp saar ya ay suwari ay suwarul madani yu la te la cay gën a bëree la ca nekk màkkiyatun lu néew a néew la dañu wax ne juróom-ñetti saar rek ñoo cay màkka yu wax ci wàllu asaka ya ca des yëpp foo gisati asaka rek saar wa madina la wàcc moo tax sax moo yóbboo boroom xam-xam yi ci wuutee kañ lañ faratal asaka comme xam na saar yuy wax ci asaka te màkka lañ wàccoon mat juróom-ñetti saar waaw kon nag kañ lañ faratal asaka ñii ne ca màkka lañ ko farataalee xoon ñenn ñe ne déedéet daal nag ñi ngi ko farataalee ca madinatul munawara ca ñaareelu at ma ca gàddaay ga wax jooja moo gën a siiw moo nekk ci muwattaw bu Malik moo nekk ci fiqhul waadix di taalifu docteur Mohammad Bikir Ismail a moo nekk tamit tabaarakallaahu ci mawsuwaatu nadrati naim ñoom ñëpp dañoo d'accord ne daal asaka ñi ngi ko farataalee ca ñaareelu at ca gàddaay ga wax jooju moo gën a siiw kon wax naa la aaya yi ñëw di ko tegtale juróom fukki aaya la ak benn lëkkale giñ ko lëkkaleeg julli def leen julli julli leen asakaal leen benn ci wa aqimu salaata wa atu sakaata ca tëgginu lamarga nga xam ne dafay nekk ci li ñuy tuddee ci jumlatul inshaiya di jumlatul talab wala mu ñëw sax ci xabariya ci yuqimuuna salaata wa yutuuna zakata sëñ daara Cheikh Modou bi ñuy jàngal diggante xabar ak insha mu ne xabar daal mooy lépp luñ mën a déggee wax nga dëgg waa mbaa waxoo dëgg rek loola mooy xabar xam nga ne ña joxe asakaak ña ngay julli mën nañ ko mën nañ caa déggee dëgg la am du dëgg ci waxin donte xabar ñaari xaaj la dafa am xabaru saadiq am xabarul kaazib xabarul kaazib la yonent bi junji ne man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqaaduhu min annaar kooku xabarul kaazib la xabaru sadiq nag mooy lépp lu ne ci alquran wala hadis yonent bi kooku xabaru sadiq la waaye du tere xabar lañ koy tuddee rek ci lépp loo xam ne mën nañ caa déggee wax nga dëgg mbaa waxoo dëgg rek kooka mooy xabaar buñ waxee nag jumlatu inshaiya ci xam-xamu balaaga mooy lépp loo xam ne mënuñ caa déggee wax nga dëgg mbaa waxoo dëgg rek taxawal ku ca mën a déggee wax nga dëgg mbaa waxoo dëgg demal ku ca mën a déggee wax nga dëgg mbaa waxoo dëgg man de yellante woon na ma wér tey wala yellante woon na ma am ñaar fukki junni tey yooyu wax yëpp inshaiya la mënuñ ko caa déggee yal na yàlla yokk leeram tabaarakallaahu ku fasaawoon la ci wàllu njàngale te bëggoon ko lool tamit daana dem ba soj du mën a wax di wax téet téet boole ko tiim bool ba di tafli nga dégg dënn ba di riir waaye terewut moom dafay jàngale rek daan wax ne sant yàlla xam-xam daal mooy xamle comme ni nga xamee ne sant yàlla am-am mooy dimbale sant yàlla ak ndomba tànk mooy yërëme waaye bu la yàlla mayee sa nga nga am ndomba tànk gu mën a doon loo wax ñi def ko loo tere ñi bàyyi ko te doo yërëme sa ndomba tànk ga santoo ca yàlla yàlla may la xam-xam te doo xamle sa xam-xam ba santoo ca yàlla yàlla jox la am am doo dimbale kenn sa am am ba santoo ca yàlla ñett yi ñett lay jariñ waaye bu ñetti yi amee te jariñut ñett yi rek dara neexatu fa kon jullee ngoog asakaa ngoog ci seen lëkkalikoo ga fardiyatu gim doon ci alquran mu tegtale ko wax naa la ko wa aqimu salaata wa atu zakata cala walladina fi amwalihim xaqun maalumun cala bokk yooyu yëpp lenn la ca juróom fukki aaya ak benn soo jëlee ci hadis yi ñeent fukki hadis ñeent moo ci wàcc bokk na ca yonentu wax ne buniyal islaamu ala xamsin shahaadati an laa ilaha illa allahu wa anna muhammadan rasulullahi wa iqaami salaati wa itaay zakaati wa sawmi ramadana am na riwaaya bu ne wa xajji baytillahi alxaraam wa sawmi ramadaan ci nga toftale gi dafa mujje koor am na riwaay boo xam ne saw mi ramadan wax ji baytilaayil xaraam door a ñëw ndax a riwaayaatu taxtalifu kon bii benn la ci xadis yi tegtale ne ah, asaka ponk la yonentoo waxal boppam ne néeg bi di lislaam daal juróomi kenoo ko téye donte yow mi may déglu sa néeg bi ñeenti koño ko téye waaye lislaam moom néegam ba juróomi kenoo ko téye poñ bu njëkk ba moo doon tudd baatu seede bi waxoon nañ ca ñaareel bi moo doon julli waxoon nañ ca ñetteel bi mooy asaka mii ñeenteel ba moo doon xor kor waxoon nañ ko ca jamonoom ja juróomeel bi moo doon xaj màkka waxoon nañ ci bu yàggul rekk ci wàllu ajag fi nga déparé sa kër ba bi ngay ñib siwaat toppoon nañ ko ca noona kon loolu benn la ci tegtale ne euh, euh, joxe asaka farata la xadiis boobu muttafaqun alayhi la mbooleem juróom-benni kutubu xadis yëpp andi nañ ko buxaari yu andi na ko muslim andi na ko ibnu maaja andi na ko tirmisi yu andi na ko abu daawud ak nasaay yi ñoom ñëpp indi nañ xadis boobu nga xam ne wax naa la ko boo demee ca buxaari yu ca raqamu juróom-ñaar juróom-ñett la ko def ci fathul baar yi muslim ci raqamu fukk ak juróom-benn su ma bañ tóor guddal naa la wax téere bu nekk ci raqamu ba mu nekk waaye pour wan la ne la rek xadis la boo xam ne bu wér a wér la mboolem kutubu xadis yi indi nañ boobu noonu muy tekki ne joxe asaka ponk la ci lislaam muy tekki tamit farata la ñaareelu xadis bi ibnu abbas moo ko solo moo waxal boppam ne yonentu dafa yónni woon ku ñu tuddee Muaz ibnu Jabal ca Yaman ba muy dem mu ne ko yaa ngi dikkal aw nit ci ahlu kitaab lañ bokk xooleen ñi tudd baatu seede bi suñ la ca nangulee nga ne leen man yàlla yonantoob yàlla la suñ ko saxalee xamal leen ne leen yàlla farataal na ci ñoom génnee ci seen alal yi asaka muy lu ñuy jàppe ki ñu xoomal ña di ko delloo ki ñu ñàkk ña kon di ngay déggee ne l'islam par étape la sooy wax wala ngay waaraate doo jël lépp jox ko nit ñi ndoor ku joxe li nga xam lépp ndoor ñu delloo la ko ndoor waaye par nànk-nànk rek yàlla bu ko neexoon ba mu yónnee yonantu bi ca saasa lay wax ne ko waxal na leen nañ julli nañ tudd baatu seede bi nañ xoor nañ joxe asaka déeréet waaye nag fukki xati lëmm mu ne ko boo demee daal diina ja yëpp wax rek la ak fas ci xol amul def dara wax rek la ak fas ci sa xol nañ wax ci seen làmmeñ yi te fas ci seen xol ne yàlla kenn la man yonent bi yàlla laa boo ko waxee jeex na demal tëdd nelaw amul julli amul sangu janaba amul woor amul joxe asaka amul dara ñaar fukki xat yonent bi ñett fukki xat yu njëkk yëpp nii rek ñi ci ñi ci woon yëpp nii rek lañ doon def fukki xat yi lëmm amul def dara yàlla kenn la wax naa ko sama làmmeñ yonent bi yàllaa ko yónni gëm naa ko sama xol jeex na demal sanguy nelaw amul dem xare amul dara sa sa diine jeex na leer na ba loola demee ba sax te li ëpp ci solo nit ki loo bëgg mu sax na yàgg te li war a solo ci li war a sax mooy lu ñu tuddee tawxiid buñ demee ba saxal tawxiid ki suñ xol yi mu wér su boobaa lu dul tawxiid bu neexee suñ kanam ñoo koy màbbal suñ bopp waaye loolu lépp kat xiram yaa nga fa rek mu ne leen baleen fa xiram yi bu seen yoon nekk ci xiram yi ñetti téeméeri xërëm ak juróom-benn fukk lu teg ma nga wër Kaaba ga yonent bi nekk fa bu soxlaa dem wari ko jullit ñi nekk fa wëri ko mu ba ko fa rek lu mu doon def dafa bëggoon a saxal tawxiid ci seen xol yi bu demee ba sax ci seen xol yi ñoom ñooy màbbal lu dul tawxiid ci seen kanam moo tax keroog ba mu saxee rek ñoom màbbu xërëm ya fukki at yi lëmmu tawxiid lañ doon jëmbat ba tawxiid jëmbatoo nag mu ne nag comme lii ngeen waxoon su fekkee dëgg la ci yéen ñëw leen ngeen julli. luy julli dañ koy préparer leen jàpp luy jàpp dañ koy préparer raxas loxo ya raxas maanaam galax ndikoog sorox ndikoog sëlmoog raxas loxo ya ba ca conc ya masaa bopp yaag koro koro nopp yaag raxas tànk ya lu ko waral boroom xam-xam yi coow nañ ci waaye dañ ne daal la ko waral yëpp yonentu yàlla aadama mi ñu tere woon garab ga mu demoon dox jëm ca garab ga di ko daggi dox gam doxoon moo waral raxas tànk loxo bi mu dugaloon pour ci biir xob yi dagg doom ba moo waral a raxas loxo ci ñaari loxo yépp ba mu koy dagg nopp yi dégg gi mu ko dégg moo waral koro koro nopp tiim gi mu tiim garab gi xob yi tiim ko moo waral masaa bopp mos gi mu ko mos moo waral gallaxndiku ndiku fóon gi mu ko fóonoon njëkk mu koy mos moo waral sorox ndiku bët yam ko doon xoolee moo waral sëlmu ñenn nge ne nañ daal njàpp lee ko waral ñenn nge ne daal njàpp taabud la yàlla ñu ko sant daal xel la bu tax ngi sant ko xamuñu ko moo ko sant nañ ko def jeex na su ko defee kon nag maanaam jullee ngoog gannaaw fukki xat nag ci la julli door di ñëw njàpp di ko jiitu julli rek amul dem xare amul dara loolu ci lañ nekk diirëb ñeenti xat bay dugg ci xatam juróomeel ba ci la nag lu ñuy tuddee asaka door di ñëw asaka nag moom ak weeru koor ñoo bokk même xat ñaareelu xat ca gàddaay gama la waaye njëkk loola moom julli rek tuddal baatu seede bi julli rek dem tëdd nelaw jeex na ku foo ay aydiyakum wa aqimu salaata nekk nañ ci nag diiram ñeenti xat bay dugg xatam juróomeel ba bu ko defee nag ñaar ñii ñëwandoor muy xoor ndax mënuñoo teqali ko xoor mooy bàyyi lekk bàyyi naan kon faaw nga mar faaw nga xiif loolu dana la waral nag bu nit ñëwee sàkku ci yow ndimbal wala nga yëg ne sa sàkkuwut ko waaye xaaju xoon na ko nga mën koo génnee muy asaka ndax bu ko waaji li la dal xiif bi daloon la ci koor gi xam nga ne métti na bu dal sa waaji sa mbokkam julit gii daloon la ci koor gi xam nga ko bu mu dal sa mbokkam julit mi moo tax ñoom ñaar ñoo ñëwandoor mënuñoo teqali ko ñu door caa teg nag juróom-ñetti xat su ko defee aj màkka dóor di ñëw moo ca mujj yi ñu ko farataalee fi yonantu bi génnee àdduna lu néew a néew la euh, moo tax ñi wax ne aj mën nañ koo yéexee waxoon naa la ko ñu ne kon ah, ah, farataal nañ ko ci xatam juróom-ñaareel ma moo tax mu toog ba xatam juróom-ñeenteel ma door di xaji kon ñu ne mën nañ koo yéexee feek sa man-man rëccagul la ñeen ñi ne dañ ko war a gaawee nag dañ ne ñi ngi ko farataale ci même at mim aji ci lañ ko farataalee moo tax boo demee ci Cheikh Khalil mu ne de gaawe ga ak yéexee ga euh, wa fi fawriyatihi wa taraaqihi xilaafun waaye boo ci xilaaf googu nag yëpp ñaar yooyu moo ko waral ñu ne gaawe ga lee mooy seen sukkandiku ñu ne yéexe ga tamit wax jooju ma wax la mooy seen sukkandikuwaay kon ku xam dëgg nànk par nànk rek loo bëgg a jëmbat nànk par nànk rek loo cay déggee yow mi yore soxna jikko yu bari indi xaal na ko neexut la bàyyi ma ko waroon a dindi mënu ko mu yaakaar la ci mënoo dindee ndoor lépp par benn rek ngay dindi di ko tere par benn par benn ba xëy lépp mu xër bàyyi ko waaye bu xëyee nga ne ko la nga doon def lépp tey nga bàyyi ko mbaa doo fi fanaan du fi fanaanati nga mujj topp ko matu ko par nànk rek sa doom ji amee na jukko yu bari yu la neexut xeexal moom ci par nànk di dindi par benn di dindi par benn ba yëpp jeexandoor sa doom ji bëgg nga mu pratiquer bu ko joxandoor lépp day diis day ko digal par benn muy def par benn muy def ngay def muy gis ngay defandoor ak moom bu yàggee lépp mu sax ci moom kon yàlla lislaam jim ñu jox lépp dëgg la waaye joxeewul ñu ko ndoor ku xam dëgg nag joxe ko ndoor lépp ñu jël ñu delloo la ko ndoor rek nga mujj perte kon jullee ngoog magee na tudd baatu seede bi ba tudd baatu seede bi magee na ko fukki at mu magee asaka ak xoor weeru koor ñeenti at ak genn wàll ñoom ñaar ñooñu timit tabaarakallaahu lu ñuy tuddee xaj màkka magee na le magee nañ ko ñoom timit juróom-ñetti at moo tax kon fardiyatoom gi sunna wax na ko ñeent fukki xadis ak ñeent moo ci wàcc benn rek laa la ci waxagum ñaareel bi mooy xadisu Muaz bi ibnu Abbas solo ko mu ne lama baasa muaadan ilal yamani qaala innaka taati qawman min ahlil kitaabi faduuhum ila shahaadati an laa ilaha illa allaahu wa anni rasulullahi ila an qaala fa alimhum an allaha iftarada alayhim sadaqatan tuxasu min agniyaayihim fa turaddu fi fuqaraihim ci riwaaye boobu ma waxee la ko nag muttafaqun alayhi la buxaari yu indi na ko muslim ibnu maaja tirmisi yu Abu Daawud nasaa yi ñoom ñëpp indi nañ hadis bu ma wax la soo ko doon topp nag noonu nga koy toppee ci ahadis yaak ayaat ya aaya ya nekk ñeen juróom fukk ak benn hadis ya nekk ñeen fukki hadis ak ñeent asaar ya nekk fukk te loolu waxoon naa la ko ci ca waxtaan yële passé ah kon nag nga dégg na daal asaka foor na lool ndax menn mbir bu ko yàlla tuddee juróom fukki yoon ak benn yonentu yàlla Muhammad tam lëmm tudde ko ñeent fukki yoon ak ñeent sahaba yeeg taabiina yi pratiqué ko boole ko wax ko ba mat maanaam fukki yoon loola kenn manta dem bàyyi ko gannaaw kenn manta am li nga bëgg te yóbbu xaalewuloo ko ah, su ko defee kon gannaaw bi ma la indilee hadis indi la alquran maa ngi lay indil nag lu ñuy tuddee ijmaa ijmaa mooy dëppoog boroom xam-xam yi mbooleem boroom xam-xam yi la ko doree ca salaf ba ca xalaf ñoom ñëpp dëppoo nañ ne asaka ponk la ci shariatul islamiya ñëpp ko dëppoo la ko dooree ci jamonoy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba jamono jii nga dima déglu ba bay àdduna bi tukki képp ku fi boroom xam-xam gu yàlla leeral sa xam-xam nga am dara ci gëm yàlla ak leer rek nangu nga ne asaka farata la nangu nga ne asaka kenn la ci ponki lislaam yay juróom loolu moom kenn weddiwut ko looloo tax sax ulamaa yi ne ku ko weddi dañ lay jàppe ngay ko murtat dañ la tuubloo ñetti fan dina xam naxante yow pour nga dellu si boo dellu see baax na boo dolli si wut nag dañ lay rey yow mi ne asaka du farata yow mi ne asaka du yoon nga ne asaka kenn validé wut ko dañ lay ray suñ la rayee duñ la sang duñ la sang duñ la jullee duñ la suul ci armée li yi su ñu demee ba nga nar a yàqu bukki yeeg jaalaal yeeg jaan yi nar lay lekk ñu defal la lu ñu tuddee muwaaraat muwaaraat mooy gas ba mu xóot rek ñu jalañ la ci biir comme ni ñuy suulee ab xaj bu dee nu tànk ya jublu baax na nu bopp ba jublu baax na sangak sàngak julleeg seedeeg dara du ko jiitu ñu dine ko noona loolu mooy xatteeb képp ku ne asaka warut asaka kenn waru ko génnee kon dañ koy suulee ni ñuy suulee aw ab ab bawkat ndax bawkat yi sax ñoo ko tene in humu illa kal an'ami bal hum moo tax ñaareel bi nag ku ne asaka war na saxal nga ko d'accord naa ne war na waaye man duma ko génne xalaatuma ko la ma nar a génnee asaka ma jox ko sama baay la ma nar a génnee asaka ma jox ko sama jabar ji la ma nar a génnee asaka ma jox ko samay doom d'accord naa ne war na mais duma ko def kooka sariya day wax ne na yoon dem doxal ci moom yoon jëlee xalal lam ja fekk ko rek fekk ko ca magasin ba taxawu ko ñiy def inventaire lépp bañ xam ne kat cinq cent million la wala cent million la million bu nekk ñi génnee ca juróomi junne wala ñu fekk ko ca géttam ga suba teel balaa yeewi rek wala ngoon gi noonu bu ñu xewee bees ñu ñëw rek circale gétt ga wër ko commencé compte fanweeri nag yu ne ñu génnee tabia ñeent fukki nag yu ne ñu génnee ca benn wëll wala ñi xëy rek wër gétt xar ya wala bëy bu ko defee commencé ko nag génnee ca noona su ca gàtt ya ñeen fukki gàtt ca xar ak nga génnee benn demeet la ba ngay amee téeméer ñaar fukkak ak benn nga door a génnee ñaar demeet ca gëléem ya bu amee juróom ñi génnee benn gàtt ci xar wala bëy noonu lañ koy noonu lañ koy nangoo jëlee ko noona ci moom su fekkee ne bañ koy jël dafa jël woo njaboot gañ jël seen i ngànnaay bëgg a xeex ak ñun d'accord kum ray ci ñun dana joxe diya ja képp koo xam ne ni rey nga ko moom day perte kenn du ko diya perte na rek kenn du ko diya waaye moom moomu ak saxal ko waaye dafa na du ko génnee bañ ñëw doxal àtte boobu yàlla dogal ñu xeex ak moom ndax dañ jël alal ji mu ne sama alal kenn du ko jël commencé génnee pistolet ñu songook moom ba far yàlla dogal ñi ray ko moom nag dañ ko sang dañ ko sang dañ ko jullee dañ ko suul ci armée li jullit ñi ndax jullit bu mooy yàlla rek la nag waaye nag grand imam du ko jullee suñ ko mënoon sax deuxième imam bi du ko jullee nañ seeti troisième imam wala quatrième bi ba ca cinquième bi mu jullee ko ku mel noona kookaa ko war a jullee kooku ak doom ju judduwut ci yoon ñoo xam xattee doom ju judduwut ci yoon ah kay nit la nag dañ ko tudd noddal ko li xaamal ko mais imaam wala sëriñ bu ñuy déglu yaakaar ko ci lu bëri bu waxee ñu dégle ñu def bu teree ñu bàyyi du ko tudd nañ seeti ña gën a suufee ñu dem tudd ko euh, naka noonu tamit koo xam ne dafa xaru ray boppam ah kay dañ ko jullee nag jullit la lislaam la war nañ koo def euh, waaye nag grand imam du ko jullee moo tax la xewoon fële ca wetu Sadio erreur bu rëy rëy la ndeysaanam waaja dafa xaru yàlla dogal yoon ñëw euh, euh, maanaam waa pompier ñëw jël ko fa dem seet ko def seen autopsie bi ba xool ko xam ne dafa rey boppam ñu dem ko directement yóbbu ko ci benn jàkka ci wetu saajo la soriwut saajo ki dëkk yooya bañ ko yóbboo rek ilimaan ja riposte ne dañ nañ ko génnee jàkka ji ñu commencé xeexoo ba oto booba sax dafa mujj dëppaat ñëw àtte leen dox ci seen diggante problème am ilimaan jóge lam tef teguwut ci xam-xam kii jullit la rek deena xaru na ah kay dañ ko sang dañ ko sang dañ ko jullee yow kay mën ngaa wax ne maay grand imam bi duma ko jullee nga jël sa naayib bi jox ko ndigal mu jullee ko waaye du ma ko jullee kenn du ko fi jullee nañ ko génnee jàkka ji loola nag du lislaam loola teguwut ci lislaam loolu nag li koy waral yëpp jiital ku xamul rek ndax nit ki bu jiite bu xamul bëgg a jiitee dana doxe bakkanam dana bëgg a doxee sañ-sañam su boobaa nag ñaari yi luñ jiite yàq rek kenn mënu ci dara ah moo tax daal dëgg-dëgg Cheikh islaam wax na ko nee na xam-xam mooy njiit loo bëgg mu dox na ca xam-xam jiitu waaye bu xam-xam buñ ko gannaawalee rek lépp yàqu bi anna al ilma huwa imam kon loola daal ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax ba mu xewee rek ndeysaanam lañ ñu woo téléphone yu bëri ca côté booba laaj ñu ko ñu tontu leen ci lii kon tey buñ ci amee occasion ba yegg si dañ koy gën a leeralaat ñooña xam ne lañ def teguwut ci sharia ña ko xamutoon tamit xamee ko ca ku mel ni tamit góor jigéen yàlla nañ ci yàlla musal sax tur wi sax ña ngi koy musalu daana julli di woor gis nañ ko mu julli ku bon la ku yées la wala ñaari jigéen ñuy say muy si sixaaq waaye daanañ julli di woor yàlla dogal na dee nañ dañ leen sang dañ leen sang waaye nag grand imam ak ka tegu du ko jullee nañ seeti ñu gën a yées ñu dem jullee leen ñu taxawee leen loola ndax daal yonentu fa waxoon rek rek sallu ala man qaala laa ilaha illallah na ngeen jullee képp ku ngeen dégg mu wax baatab la ilaha illallah kon nag ku wax baat boobu rek di julli di ko pratiquer loo bon bon bon ngaa bon rek waaye ah kay nag dañ la jullee moo tax kii ne du ma génnee asaka waaye ah kay d'accord naa ne asaka war na ñi dem nag di ko jëli ca moom mu commencé ànd ak njabootam nga di xeex ak ñun ba rey ci ñun kenn dañ ko dana joxe diye ja ñu jëflanteeg moom ci yoon euh, su fekkee dafa rey bu ñu xatte yoon sax dañ koy rey su fekkee nag moom ci boppam dañ koo dafa rey dañ koo rey moom kenn du du rey ki ko rey te kenn du ko diye loolu mooy xatteeb lislaam bi loolu tamit Abubakar Siddiq moom la xatte woon moom la defoon. looloo waral aboubacar siddiq bi mu toogee ci xilaafa ak sayduna muhammad at mu njëkk ma ñu dëkkee woon yamaamataak bahrayni àndoon ak ay musaylumatul kazaab ak ñu mel ni aswadul anasiyook ñu mel noona ñu ne de ñoom duñ génnee asaka ndax asaka daal gis nañ ne impôt rekk la yonentu la yàlla waxoon nañ ko ko jox moom la waxoon ne ko jël ko ñu indi aaya ñu yàlla dafa waxoon yonentu ne ko xuz fi'lu amar la te amar jooju ci yonent bi la dellu dafa nekkoon xuus jàppal min amwaalihim xuus jooja waxuñ ko woon Aboubacar ñoom loolu lañ déggee woon waxuñ ko woon Seydina Omar waxuñ ko woon Ousmane mais yonent bi lañ ko waxoon nekkatu fi kon kenn du jëlati suñu alal yi xam nga rek nit ki ndeysaanam ak dégginam waaye Aboubacar ndeysaan wax waxam ju siiw jëne law manauni iqaala ba'irin kaanu yu addunahu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la qaataltuhum aboubacar ne wallahi jatanka gëléem wala buum ngañ koy xeewee buñ ko daan jox yonent bi bëgg ma koo xeñ ne duñ ma ko jox sax danaa xeex ak ñoom sayyiduna Omar nangu wutoon xeex bi daa ko rut ci woon ne ko aboubacar naka ngay xeexee ku tudd baatu seede bii xemut ci nga bëgga a xeex ak koo xam ne ba mu ko tuddee ma ngay julli di xoor nga bëgg a xeex ak moom te yonent bi waxoon ne yàlla yonent bi ne woon umirtu an uqaatila naasa xatta yashhadu an laa ilaha illallah ñii seede nañ ko ña ngay julli foo ko teg kenn du abu aboubacar siddiq ku la mag rek ëpp lay sagar ku la gën a jege yonent bi rek gën laa xeeñ parfum aboubacar ne ko ku bëgg a teqale julli ak asaka ma teqale sa baat ak sa jëmm sayduna omar jàngal ma alquran fu yàlla tuddee ñaareel julli rek teg na ca asaka ba mat ñaar fukki aaya ak juróom-ñaar ci limu imaamu Qaradawi foo jàngee wa aqimu salaata wa atu sakata la foo jàngee na salaata wa yutuna sakata la foo ko teg kon si la Omar gàddu jaas ji ne ko d'accord naa ba ñu xeexee nag am victoire gañe lool gañe gu rëy ci la nag Aboubacar si la Seydina Omar ne siboon naa xeex bi ca njëlbeen waaye gërëm naa ko bi xeex bi paase yëg naa ne mënutoon a ñàkk. atte booba nag ci la boroom xam-xam yi ballaloo ñu dëppoo ki def ci istinbaat ñoom ñëpp ñu bokk dëppoo ne ku ne duma ma génnee asaka danañ xeex ak yow koo rey ci ñun ñu jëflante kook yow ku la rey yow nga perte soo toogee nag xeexoo toog ñu jël sa xalal la ca war ñi génne ko la ca des ñi bàyyee la ko loola mooy atteeb chariatul islamiya ci asaka ji gannaaw bi ma la indilee alquran ci wa aqimu salaata indi la hadis ci buniyal islaamu ala xamsin ma indi la ijmaa tamit ci dëppoog boroom xam-xam yi ci ñaar yooya te mooy ki gëm naa waaye defuma luy xatteem bi mooy loolu ak ki ne man de gëw ma kooku moom dañ koy rey gannaaw buñ ñu ko muñalee ñetti fan asaka ngoog kon xatte baa ngoog asaka moomu nag gannaaw bi ma la waxee dafa war war gi dugut ci lépp war gi dugut ci ñëpp ñi asaka war laa lay wax doontele dana am wuute ci ngir yi asaka war na ci koo xam ne jullit la su ma ne jullit rekk nag ku dul jullit génn na ab xéeféer asaka warut ko wérut ko ndax nag ku dul jullit tuddagoo baatu seede bi julliwuloo asaka warut la asaka wérut la ndax nag ñi nga xam ne ay xéeféer lañ lenn ci ulamaawu usul yi dañoo wax ne duhuñu ñu xitaabanteeg ci furóoxi sharia yi ne ñooña kenn xitaabut ak ñoom kenn digalut leen kenn santut leen kenn waxut ak ñoom ci wàllu furóoxi sharia yi loola mooy waxi maanaam ñetti borom ngir ya abu hanifa loolu la gëm imaamu shafii loolu la gëm imaam ahmad ibnu hanbal loolu la gëm imaamu malik nag moom daakoorut ci mu ne aha kay xitaaban nañ leen ñoom ci wàllu furooi sharia yi aha kay asaka war leen de waaye wérul leen ndax al li leen asaka war a tax bañ ko bàyyee ñu war leen cee mbugal foo fa waylu fa waylu lil musrikiina allaziina laa yu'tuuna zakaata alquran wax na ko xurwa ca safara ca mbugal dal na ci kaw musrikiina yi nga xam ne duñ génne asaka kon su leen warutoon yàlla du leen ci mbugal waaye nag war na leen waaye dafa am baaraas bu dox seen diggante ba tax mënul leen a wér mooy wéetal yàlla nangoo taxawal julli nangu yonantug yonantu gi su ko defee seen pas-pas ba wala seen ñaw seen wëñ nga ñuy ñaw am na pas-pas lu ñu xëccati rek mu taxaw te sëñ Moussa Ka dafa daan wax ne bala ngaa xam ne pas-pas am njariñ ngay ñaw fàtte fas wëñ ga soo xëccee la nga ñëwoon lépp topp la waaye nag bu pas-pas ba xasee am rek nag nga ñëw yëpp day taxaw benn place pas-pas ba nag mooy wéetal yàlla kon asakaangoog boroom ñetti ngir yale ñoom ne nañ ab xéeféer warut ko wérut ko ndax xitaabuñ leen ñoom ci furuuci sharia yi boo demee ca waraqaat waxut loola nee nañ xitaaba nañ leen ci furoox yi maraqi suud bi jàngale xam-xamu usul nee na xitaaba nañ ak ñoom ci furuuxu sharia yi mu indi aaya jooju ma indi la léegi Malik loolu la gëm moo tax maalik ne war na leen waaye wérut leen buñ bëggee mu wér leen da nga tudd baatu seede bi wétal yàlla kenn du imaamu Malik imaamu Malik xam-xamam bu bari ba mooy ki njëkk taalif ci fànnu xadis buxaari yoog muslim ak yi ngay dégg yépp mu watta moo ko jiitu ndax maalik a leen magoon bi maalik liggéeyee mu watta xóolu gim ko xóoloo taxoon da ko sànni ci ndox mi géej gi ne su fekkee ne yàlla gërëm na liggéey bi ndox du ko mën a suuxal bu ko yàlla gërëmul nag na suux dem bu mu ñëwati waaye téere ba ne dégg ca digg ndox ma tooyut te xam nga téere boo dugal ci ndox tooyut loola yéeme loola yéeme na moo tax Malick lim def de xoolu sa bopp mënu koo paase xoolu ne sellal nga mënu koo paase ku fi taalif téere sànni ko ci géej gi xam waaye Malick moom bi mu taalifee xadiis ci fànn ak xadis moo ki njëkk a taalif muy mu waxta da koo jël sànni ko ci géej gi téere ba tooyut labut kenn du imaamu Malick imaamu Malick mooy koo xam ne. yonent bi junjoon na ko ci ay ahadis ta fekk ñëwagut daan wax ne nit ñi de danañ raj-raj loo ci boroom xam-xam bi nekk ci alamu madina waaye ak ah, kay ndeke moom la doon wax gars yi daanañ xeex ci buntu kër imaamu Maalik ngir jël darsu damay xeex maa la fi njëkk yaa ma fi jiitu ba ma xante bay kur fañante ngir ne war a jël darsu rek ngir jël si xam-xam kon darsu ku ko bëgg da nga caa war a xiir ka lay jàngal nga war a fexe mu fekk la fekk nga toog ba sa téere waaye bul toog bay ki lay jàngal di la xoo yooyu yëpp ñàkk xiir ci xam-xam la ñàkk caa xiir nag da koy xeñe xam-xam dafa am fulla day wax ne ku ma jox sa lépp ma jox la sama lenn ku ma jox sa lenn ma téye sama lépp kon sa lépp nga koy jox rek mu jox la lennam kon bala laa asaka war bi ki njëkk na nga nekk lislaam nekk ci lislaam di jullit ku duhut lislaam asaka warut ko wérut ko loolu mooy ñetti ña loolu loolu lañ loolu la loolu la ñetti borom ngir ya wax Malik ne ah kay war na ko waaye werut ko naka noonu tamit euh, koo xam ne dafa murtat nag ni ngi woon ci biir lislaam mu murtat ndax asaka war na ko murtat na boroom xam-xam yi ñetti wax wax nañ ne moom moomeelam ga ba murtatee rek dafay toxalu dafay dañ xamatul moomatul dara euh, alalam dañ koy yóbbu bayti maal ñu ne kon asaka warut ko loolu mooy wax ju njëkk ja ñu ne nag moomeelam nga kat teqali ko wut ak moom moo ko moom ba tey ñu ne kon war naa génnee asaka ñenn ña ne xàq la joo xam ne ju ko war la waaye nag mi ngi ko saxalee ci raf euh, ci bi mu jaradi du xooli yi rek fil islaam maanaam falaa yasqutu bi ridda kon ñu ne tamit ba mu duggee ci lislaam rek la ko asaka ja war kon même bu murtatee du tere asaka ja nekk fa kon ku murtat ñetti wax yooyu la ci borom xam-xam yi wax ñii ne alalam ja dañ koy wax fu taxawlu ko bu dellusee ci lislaam ñi delloo ko ko bu dellusuut kenn du ko ko delloo dégg nga loola mooy warak ñooñu ñoo wax ne kon war nañ caa génne asaka su fekkee dellusi na ñi delloo ko ko loolu mooy wax ji gën a wér ndax li an asakaata xurbatun taftaqiru ila niyatin comme asaka nag jaamu yàlla la te jaamu yàlla dafay xaajowoo xéene kon nañ nangu alal ja téye ko bu tuub bu bu bu ci lislaam ñu jox ko ko ñu génnee ko ndax mu mën caa yéene mu mën a wér wax jooju daal lañ gën a tànn ñaareel bi asaka mi li muy for for warut koo xam ne dañ laa moom muy li ñu tuddee jaam waaye ka muy war nag mooy koo xam ne ak xuriya ma ngi ca moom jaam nag dafa bari façon moo xam jaam ba mu dabbar la kuñ gannaawal mutaq ilal ajal la wala jaam ba xidnu la wala baax baadi la demeet li hëpp ci borom xam-xam yi dañ ne xeeti jaam yooyu yëpp asaka warul leen waaye nag ba may wax jaam yooyu yow mi may déglu naan suñ dëkk ba dee dégg naa am na ñu ñu fay wax jaam yaa ñu taxuñ may wax jaam boo xam fasu boppam sareetab boppam toolab boppam bu xëyee xëy ci toolab boppam bu gontee gont ci toolab boppam kooka bu génneewut asaka yar bi dal ci kawam dafa war a génne asaka kooku taxul ñuy wax jaam ab jaam boobu ñuy wax mooy koo xam ne xamul dara fasam woowa sax ñu ne moo ko moom ak sareet ba sang baa ko moom bu ko neexoon bu ko rombee mën ko indi sa fas weeg bi du ko sañ a delloo kooka du xam tool euh, moom ak ab surga ñooyam bët bu set bu xëyee rek ci kër sang ba lay am lay dem kooka sax tey waxuma la moom waaye doomam ya sax sang baa leen moom doom yam am yëpp bu xëyee moom ak doom yaag yëpp ca kër sang ba la ñu dem xëyi ji fa fa la ñu gontu bu demee saadu ji lañ leen jox sang bi lañ koy jox lañ xam lépp sang baa ko moom kooka nag dëgg-dëgg doo déggati ku ne xam na suñ dëkk comme nag li may wax ni déggoo ko ne xam na suñ dëkk waaye koo fa mën a ji tuumaal ne ab jaam la moo moom fasam wa moo moom sareetam ba moo moom toolam ba kooka nag moo moom gétt ak nagam gaa xaram ya na génne asaka beneen jaam ba nag moo tax may wax boobu nag mi ngi fii ci lislaam coow bari na ci lool ci boroom xam-xam yi lislaam dafa ñëw fekk fi njaam yonentu bi avant ñu ko yoon dafay fekk ay jaam dafa fee fekk jaam bi mu ñëwee fekk ko fi nag moom lislaam ñëw ubbi bunt bu koy jeexal ubbi bunt bi koy wàññi te luy wàññeeku rek ci jeex la jëm moo tax ba mu ñëwee fekk fi jaam bëri te mooy koo xam ne dafa dem ci xare ñu jàpp ko rek moo doon jaam loola nag ba mu ñëwee ba yonantu bi tey bu demee xare ji sax ñañ jàpp ca jullit ñi ay jaam lañ ñeel xéeféer ya ñun tamit ñun jàpp ci xéeféer yi ay jaam lañ neel jullit ñi dañ leen di séddoo comme ni ñu séddoo marchandise mi lislaam nag ba mu ñëwee fekk fi loola mu appliqué ko d'accord ko waaye ca buntab xeex ci yoonu lislaam rek waaye nag buñ tëj ko buntab xeex ci wàllu ceddoo xeex ci wàllu yàkkali moomeel xeex ci wàllu maa moom fii maa ko doonoon samay baay déeréet na fekk làng jullit ña ak yéeféeri di xeex ngir yëkkati lislaam kuñ ca jàpp ci ñaari làng yi jaam nga ñeexal ñooña bunt boobu rek nag la la ci la ko bàyyil ba mu ko ci bàyyilee buntu booba nag yeneen buntu ya des yëpp kuñ ca jàpp dootoo jaam ak ku la ko wax rek dafa laa yeb nag mu buntu boobu des ki mu xubbaat beneen buntu bu koy jeexal loo def mu ne demal goreel jaam ngir bëgg mu jeex yaa wooroon weeru koor ba ci digg ba nga dog tay ko mu la demal nga kafaare ko goreel jaam nga séexaar ak sa jabar wax ko wax joo xam ne ku yaruxut a koy wax nirale ko sa waajur mu ne la demal nga goreel jaam bala ngaa delluwaat ci moom demeet maanaam nga rey nit mu demal nga goreel jaam gannaaw bi nga joxee diye ja waaw luy wàññeeku ci jeex la jëm su ko defee nag loolu bunt boobu la ko lislaam nekkoon yonent bi di xàttee loolu ba génn àdduna saxaaba yi di xàttee noonu koo def mu ne goreelal jaam demeet yeneen yu bari nag yeneen jihaad yi suñ suñ suñu xeet wi su suñu Afrique gii rawatina suñu réew mi li ko wër jihaat yu mel ni jaha jihaatu si omarul fuuti yu ñam jàppoon ca ñooña ñooña ñooy jaam donte gannaaw si gi tuub nañoo yooya ñu mel ni jihaatu maam amari ngoone ndaak jihaatu ñu mel noona yooyee nag ñoo fi desoon ñoo fi desewoon yenn yenn jaam yooyu moo tax sax loolu ci jamonoy maam alaaji malik ak baay alaaji amadou dem fekk na ko fi ak ñooñu balaa ji amul dem sax ci benn téere mi ngi ciy laaj maam alaaji Malick ne ko waaw jaam yi nekk fi ñi jàppee leen ci xareeb lislaam te goree luñ leen gannaaw ga seeni cosaan ñu nekk fi ba léegi ndax ñooña indépendance bi nga xam ne tubaab yi may nañ ko Sénégal dina tax ñoom ñu mën leen libéré ne ay gor lañ maam alaaji Malick ne ko déedéet nag jaam daal sangam ba rek moo ko mën a goreel wala mu def njotoog moom génnee xalal jox ko ko door di gore waaye indépendance gi ñu may mënul ci sukkandiku ñu jàpp ne ay jaam ay ay gor lañ loola boo demee ci asila ak ajwi ba bi nga xam ne mamalaaji Malik moo toog mamalaaji amul dem di ko ko laaj téere bu am solo la danga nga ko ca fekk mën na ñeent fukki laaj ak yu teg kon mu ngoog jaama ngoog ca jaam jañ doon wax waxuma jaami ki moom fasam weeg sareetam bi moom toolam beeg nagam yi kooka na génne ci asaka taxut ñu koy wax ah ba ca tegu tamit nag bala laa asaka war gannaaw bi nga nekkee jullit nekk di gor na nga am lu mat nisaab lu matul nisaab asaka warut ci nisaab nag suñ ko waxee ci ay xar ak i bëy na mat ñeen fukk bu ko manqué dara waru ci bu fekkee ci nag la na mat fanweer fa la nisaab ba commencé bu ko manqué dara waru ci su fekkee ci gëléem la na mat juróom bu manqué juróomi gëléem dara waru ci su fekkee tabaarakallaahu ci yu ñuy bay ca diggante euh, maanaam dugub jaak mboq maak ceeb baak ba ca gerte ga naa la indil huutee beeg dañ ko génne duñ ko génne lu ci borom xam-xam yi ba ci suñu waa réew mi su boobaa yooyu yëpp. bu manqué juróom benni bëri ko dara waru ci foog mu mat juróom benni bëri bu ko matee nag natteekaay boo am yaa xam su boobaa juróom-ñeent ya yaa moom fukkeel ba nga jox ko fuqaraaw yeeg masaakiin yi ndeem yàllaa ko nàndal su fekkee yaa ko arrosé yaa moom juróom-ñeenteel baag genn wàll genn wàll ga ca des nag nga door ko jox fuqaraaw yi kon mbooleem xeeti mbay yi ñu génnee asaka feeg matagul juróom benni bëri dara waru ci bu ko matee nag ci la cay asaka door doo foofu la nisaab ba commencé su boobaa kon nag yow mi may déglu wax naa la nisaab yi ci xar wax naa la ko ci nag ya wax naa la ko ca gëléem ya wax naa la ko ca euh, mbay ma kon xanaa danga may wax ne rek daal waaye wax a ko ci xaalis xaalis dama la koy wax ci lu gën a yaatu muy kexe kexe muy naqdu fu ko fuqaaw yi waxee ñu ne kexe rek wurus ak xaalis lañ ca namm wurus ak xaalis rek lañuy ñuy génnee asaka muy kexe weñ gu ñuul bokkut përëm bokkut bettax beek yeneen ya ci aajo yooyu yëpp bokkut moom daal mbooleem xeeti weñ yi ñuy jëriñoo ñaara cay génn asaka mooy lu ñuy tuddee kexe kexe nag mooy wurus ak xaalis wurus ak xaalis xaalis booba ba ca matoon asaka mooy ñaar téeméeri dërëm yoon ñaar téeméeri dërëmi yoon ñaar téeméer la woon amul ci suñ ñaar téeméer yi bokkut ak ñun ñaar téeméer dërëmi yoon ci jamono yonantu ba dañ daan wax ñaar téeméer ci jamono yonantu ba loola lañ daan génnee asaka mooy mooy mooy fa la nisaab ba commencé ñaar téeméeri dërëmi yoon yooya moo tollook ñaar fukki diinaar diinaar luñ lañ ñaar fukki diinaar lu tollook moom ca googe jamono rek moo tolloog ñaar téeméeri dërëmi yoon fa la nisaab ba commencé nga ne ma man kat ñaar téeméeri dërëmi yoon xaw ma ko man mi la koy wax sax xaw ma ko kon su boobaa kon dama la koy gam-gamlee rek ci diinaar bi boo ma boo ko xamee ci diinaar bi nam toll rek xaalis boo mën a amati danga nga mën a xam nam toll diinaar bii daal dañ la waxoon yow mi takk jabar rubu dinaar moom la ñuy canee soxna yi ñu ne la tamit rubu dinaar ci la ñuy daggee loxoob ci sàcc walla xayma ba rubu dinaar nag ñi di ko gam-gamlee ci ñaari junne ñi ne ñetti junne nga yëg ne kon dinaar bëri na kon ndeko kon bu fekkee bu benn rubu dinaar muy ñeenteelu xaaj ba ñeenti junne la kon jàppal ne dinaar bu nekk presque quatre-vingt mille la loola nag nga dem ba am ca lu mat ñaar fukk loola ci ngay door a génne asaka soo jàppee ne rubu dinaar ñetti junne la ba tax na tey këri diine yu bëri ñetti junne lañ fay takkee sa sëy nga ne ñetti junne ba muy ñeenti yoon kooka soixante mille la lay jox kon 60 mille ba mu jox la ba ma ñaar fukki yoon kooka lañuy door a génne asaka kooku da lay jox daanaka un million 100 kon loolu lay tolloog ca dinaar ba euh, boo bëggee geneen gan gamle gu gën a jege dinaar bi boo demoon tey lali wurus wala nga dem tey fi ñuy tëggee fu tëgg yi nekk yëpp di tëgg xaalis yeeg yooya boo leen laajee fu dinaar bi toll rek ndax day yéeg a ko wàcc dañ la wax ne la actuellement mu ngi ci nangam. waaye nag ñoom tamit dañ koy gam-gamlee ci wurus moo tax biñ ko gam-gamlee ci wurus ñaar fukki dinaar bañ ko gam-gamlee ci wurus quatre-vingt-cinq grammes lay tolloog ci oor quatre-vingt-cinq grammes nag ci or bi nga xam ne nekkul or bi gën a foor ndax or douze carats am na vingt et un am na boo jëlee nag or bi nekk ci digg bi euh, quatre-vingt-cinq grammes am lam toll loola mooy tolloog ñaar fukki dinaar loola mooy tollook ñaar téeméeri dërëm yoon 85 grammes nag foo toll ci àdduna boo ko jaayee wala nga gam-gamle ko lala xaalisam ba jox boo ko gam-gamlee foofa la nisaabu xaalis commencé jëm kaw waaye bul tayal nag ñu ne ñaar téeméer nga ne ñun ñaar téeméer lañ ñu wax rek lii la ñu tuddee ñaar téeméer ci CFA Gambie lee la ñu tuddee ñaar téeméer kon man ñaar téeméer ren ba diwen naa ci génne juróomi dërëm njuumte la ñaar téeméer yi matul dara matul nisaab ñaar téeméer yooya lañ wax ñaar téeméer yooyu mooy toll ñaar fukki dinaar ñaar fukki dinaar mooy tolloo quatre-vingt-cinq grammes ci ji jamono boo ko jëlee fu mu toll ci àdduna bi ca Makka ci Sénégal ci Fune ca Gambie ca Siin ca Dubaay boo laajtee quatre vingt grammes ci oor bi nekk ci digg bi boo ko wàccee lam la jox ci xaalis rek foofu la commencé. mën naa la ko gën a jegeel ci lu gën a jege yonentu bi jegeel nañu ko yonentu dafa amee woon ab dinaar. jox ko benn saxaabi bu ñu tuddee Urwatu ne ko demal jëndal ma ci xar kooka nag commerçant bu xam ruq yi la boo yónni yónnil ko xam ruq yi ak ruq-ruqaat yi mën a jaay mën a jënd yàlla may ko benn dinaar ba mu far jënd ca ñaari xar te yonentu benn xar la soxla mu dugg ci ruq yeeg ruq-ruqaat yi jaay beneen xar ma ci benn dinaar indil yonentu bi benn dinaar ak xar kon xoolal loolu xam nga kooku kooka kookaa jëra yónni kilifa boo ko boo matee kilifa dangay ngay ndaw lu mat ndaw xam nga moom dinaaram bi dellu siwaat na ci moom te am na xaram mi ki yoon na mat ndaw yonent bi kontaan lool keroog ñaanal ko ñaan gu foor ne ko loo jaayati yàlla na jar kooka de bu tibboon suuf di ko jaay sax ni ngi njëkkalante ko yonentoo mën a ñaan léegi nag kon ñu ne te loola yonent bi li mu ko doon defee tabaski la doon jënd ñu ne kon benn dinaar foo dem mooy li mën a jënd xaram xaram kilifa kon nag boo bëggee xam ni saabu xaalis lu mën a jënd ñaar fukki xaram tabaski ñaar fukki xaram tabaskeem kilifa mooy rek kilifa ga mooy ilimaan ji kilifa gi mooy sëriñ bi kon lu mën a jënd xaram ma nga mën caa jënd ñaar fukkam loola moo tolloog tabaarakallaahu nisaabu xaalis bañ war a génnee asaka boo ma doon déglu mën naa la wax nag ñaar ñaar ñaar ñaar lu mën a jënd ñaar fukki xaram tabaski daal tabaski nag wax dëgg yàlla bu xar ya seerut doo ko doo ko boole ca seer xar ya yombut demoo foo xam ne tamit xar dafa faa jafe ba ëpp demoo foo xam ne tamit xar dafaa yomb ba ëpp mais fu digg doomu nga jàpp naa ne boo amee ñaar fukki junne ak ñeent da mën a am xar moo xam ne daal mën naa jënd xaram tabaskeem kilifa wala nga ne ñaar fukki junne ak ñaar su boobaa nag loolu boo ko jëlee nga def ko ba mu ñaar fukki yoon ak ñaar un million deux cent la lay jox bu fekkee ñaar fukki xar ñaar fukki junne ñeent la su boobaa nag nga jàpp ne kon un million deux cent daal maanaam boo ko gam-gamlee fa la nisaab ba commencé même quatre-vingt-cinq gramme bi boo ko seetee tamit ñaareel bañ koy mujj a laajte mi ngi tolloog ñee téeméer euh, un million deux cent la tolloogoon ci xaalis moo tax soo amee un million cent wala un million deux cent denc ko ren ba déwén nag ci la cay asakay door di war bu ko manqué dara waru ci su boobaa nag ko mat na ko defal ñaar téeméer yu ne nag juróomi dërëm mille bu ne 12500 1 million bu ne 25000 waaye boo toogee rek bëgg a tañ lu comme man bëggoo dem gëstu ji sa yoon nekku ci yeneen téere yeeg waaye na ñaat téeméer lañ wax ñaat téeméer ngi nii rek dénk naa ko ren ba de damay génne asaka gisuñu ko du loolu. boo demee ci alfata wal muasara loolu la wax li ma la wax ni 85 grammes boo demee ci Cheikh Khalil ci saraxa dir dir bi wala dusoo xiw bi wala. mawaahibul jalil bi noonu la la koy indilee urwa na ko yonantu bi yónnee woon benn dinaar mu jënd ci ñaari xar jaayaat beneen ma ci andi xar andi benn dinaar te loola tabaski la woon ñu ne kon lu mën a jënd ñaar fukki xaram tabaskeem kilifa loola moo tolloog tabaarakallaahu nisaab bi ñu war a génnee xaalis kon fokk nga bokk ci téere yi di def mu xaarana di lëkkale wax yi ba mën a seet li nga xam ne mooy la gën a jub nga mën koo jël kon euh, loo mën a mën a génne asaka boo amul lu mat nisaab dara waru ci soo amul lu mat million cent jëm un million deux cent ren ci ko ren ba déwén ci xaalis dara waru ci boo amul lu mat fanweeri nag dara waru ci soo amul lu mat ñeent fukki gàtt muy xar ak bëy dara waru ci soo amul lu mat juróomi gëléem dara waru ci lu xeeti mbay yi ñu génne asaka boo amul lu mat juróom benni bërigo dara waru ci sooy génnee tuddee ko sarax waaye bu ko tuddee asaka kon nisaab yi fii la commencé ñaareel bi walla ñeenteel bi bala laa asaka war na mat xat bu fekkee tamit xam nga lii lépp dajee na gor nga jullit nga xam am nga lu mat nisaab ci gàtt wala ci kexe walla ci mbay waaye nag matagut at asaka warut ci su ma ne mbay nag bu ñoree rek atal na ñor ga laaka nam ci waatoo xaqoo yow ma yi waaye buy kexe faw mat at buy juri kër euh, di ndoxte faw mat at waaye buy mbay nag moom bu ñoree rek mat na maanaam génneel asaka boo bayaatee léegi tamit nga génneexat asaka saa yoo bayee rek génneexal wa aatoo xaqahu yow ma xasaadi kook duñ ko ca xaar at ga euh, ba ca tegu tamit euh, maanaam juróomeel ba na fekk nga dàquhu ci bor loo mën a mën a génne asaka te yaa nga xamee bor 2 millions nga amee denc ko ren ba déwén amee nga borob 2 millions bu ñu war a fay nii demal nga fay ko asaka wàcc na la lu dul nga am meneen marchandise mu asaka warut moo xam ne boo ko jaayee dana mën a fatt bor booba kon demal nga jaay loola fayee ko bor ba sa ñaari millions yi nga génnee ko asaka waaye ñaari millions rek nga am ñaari millions nga amee ci bor demal nga fayee ko asaka wàcc na la yaa ngi amee 3 millions. te yow 2 millions nga amee bor 3 millions nga am ci xaalis waaye yaa ngi amee borob 2 millions demal nga faye 2 millions ya du ko defee 1 million ba nga génnee ci asaka muy juróomi juróomi juróomi juróomi junne ya mu jeex saa yoo génnee asaka daal la ki des mat nisaab rek su ko manqué doo ci génnee dara 1 million bi sax matul nisaab kon dama la ko misaalee noonu rek moo tax ma waxee la ko noonu waaye damaa bëgg a wax ne daal soo amee lu hëpp sa bor bi demal nga fay ko. la ca des soo bu matee un million deux cent nga génne ca asaka bu ko manqué dara waru ci kon asakaango noonu lañ koy génnee commerçant yi ñi bàyyi ci xel ci dugalante baag la ca aju kon ñi asaka war a ngi wax naa la ko wax naa la ne asaka daal juróom ñii la war ab jullit ku dul jullit génn nga na fekk ngay gor kuy jaam génn nga waaye waxuma jaam bu moom fasam ak sareetam ak toolam ba koo na génnee asaka ku lu mat nisaab ku am ku am ku am lu manqué nisaab dara waru ci wax naa la nisaab yi na mat xat ca yow raa xatal loo lu manqué xat dara waru ci na fekk tamit nga dàqowu ci bor bu may wax bor nag mooy kexe boo yoree kexe muy wuru sa xaalis yore borom kon doo génnee asakaay wuru sa xaalis waaye loo yore yore bor lu mu bëri bëri te yaa ngi bayoon sa mbay mi da ci génne asaka boo xee boo amee borom téeméeri million million nga amee bàyyi fi amee toolab gerte boo xam ne téeméeri ectare la génneel asaka ja ba pare door a dem dugal dugal la ngay dugal ca bor ba wala kay yaa nga xamee bor waaye ay nag nga yore xare ki bay lu bor ba bëri bëri bëri danga nga génnee asakaay xare yeeg bay yi ba pare booy fay bor ba nga dem door koo fay lu waral su fekkee ne nag borob xaalis nga amee te yaa ngi yore ti bor nga yore te yaa ngi yore xaalis moo xam bor ba lu mu doon waaye yow xaalis nga amee kon doo génnee asakaay kexe doo génnee xaalis ba demal jël xaalis bi fayee ko bor ngay génnee asaka bor bor ta dàq asakaay ndoxteef bor mënta dàq asakaay mbayteef waaye bor mën naa dàq asakaay kee lu tax mu mën a dàq yee te ta dàq yi mooy fuqaraawu yeeg masaakin yi gis nañ sa tool bi seen xel nga ca ba ngay ji rek lañ koy commencé romb muy sax rek ñu ne ah kii ni tool bi sax saxee rafet na ñu ngi koy ñu ngi commencé ko romb mu dem a dem ba meññi ñor ñu ne ah kii dugubam ji rafet na de kii de mboqam mi rafet na de seen xel ca gis googu nag ñu gis ko alal dafa xeeñ ku ko gis xel nga ca rawatina ku néew doole moo tax ñu ne génnee ci seen xàq nga jox leen ko booy fay sa bor door a dem fay naka noonu sa nag yi nga may romb rek fu ne nga romb waa gi gis nag yi xelam nga ca loo bëri bëri bor demal nga jël ca nag ya génnee ko asaka ba pare door a booy fay bor door a fay bor xaalis bii nga yore nag. ngi denc ci banque bi mbaa nga denc koo ko waxut xamut ko ndax xaalis bi moom dafa neex a denc waaye ay nag kenn mënu koo denc ab tool kenn mënu koo denc lañ mënta denc nag loo bari bëri bor du tere da nga ca génne asaka lañ mën a denc nag boo yoree bor mu xem ca képp fay ko comme amoo beneen xaalis bu mën a fay loola amoo jeneen xalal ju ko mën a fay juñ asakaalul bu defee mu wàcc la su fekkee boo ko fayee ñi topp la demal dugal ci la ca des ngi topp la asaka warul la su fekkee boo ko fayee desal la nga desal bu matee nisaab un million deux cent nga génne ci asaka su ko mën dara waru ca ma tëjee nag bor boobu boo ko doon fay yoreel nga ma ñaari million yore xaalis bi ba mat nga war koo fay nga ñëw di ma fay ñaari millions yi ma ne la far naa la ko may jëlal doo ca génneeti asaka yaa ngi koy door a moom su boobaa déwén la jëmati doo ca génnee benn dërëm bàyyil ba deween bu ko fi déwén fekkee ñaari millions yi million bu ne nga génnee ci juróomi dërëm muy cinquante juróomi junne muy cinquante mille yaa ngi fay bor far waaja may la ko bam la ko mayee nga ko dóor moom dootu ca génnee ti asaka déwén la jëm waaye du doon ren kon teg leen foofu seen baaraam bañ dellu si waat fii ma wax la nag asaka ngoog ak nañ koy war a génnee ma nga léeg nit ñi génne ci asaka làqoo ko ci wàccantal yi kii ab commerçant la war a génnee asaka joxe xaalis bi dem jënd ceeb yóbbu ko ca dëkk ba foo ko teg kii ab commerçant la wala ab ab jarga la war a génne asaka dem jënd nag dem dem saam ko ca dëkk ba def koy saam kër gu ne nga dugal ne ah, nagu asaka wi la foo ko teg yow joxe wu asaka saamab yàpp nga joxe yooyu yëpp dafa jar a boo ma toppee suba incha allahu ma sof ak yow li ma sos ak yow wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.